Cheikh Omar Diop bio naturel ñépp xam ko ci liggéey bu sell te wóor moo leen di may seen émission subulu salaam azanil baaxi min seytaani aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaayli fi kitaabihi l aziz fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waxaale subhaanahu wa taala fa zakir bil quraani man yaxaafu waid wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yalamu fihi xayran ilaa dalana alayhi wala tarixan yu addi ila charri ilaa xadsarana minhu mbokki jullit yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu kilifa diina yëpp di leen jaajëfal di leen dokkeel macha allah ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci ko taxaw ko réew mi euh, ñu dellu si waat nag ci émission bu am solo mu di subul salaam émission boo xam ne li ko tax a jug rek mooy fexe ba yee jullit ñi li ñuy wax naan fa zakir fay na zikra tanfaal muminin fàttalante ndax fàttalante dina jëriñ jullit bi nga xam ne dafa fàtte woon ba tax na ñuy ànd woon émission bi nga xam ne moom moo di subul salaam naam sax ñu ngi ciy wax loo xam ne waruñu ko wax mbala ñu ciy yàq kon ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax xam ne rek waxuñu ak ah, boroom xam-xam yi ñu ngi wax ak ñi nga xam ne rek dañoo toll ci fàttalante ak ñoom ndax saa su nekk fi ñu toll ñu ngi gëstu xam-xam di gëstu naka la ñuy def ba xam seen diine mu mel ni ki ñu ànd ak ñooñu rek di fàttalante li nga xam ne moom moo di lislaam diine lislaam ji nga xam ne moom rek moo ñu yitteel moom rek moom ñu soxal moom rek moo ñu yitteel ngir julliti yàlla yi nga xam ne yàlla leen fi wàcce waaye bi mu leen wàccee digal leen ak jaamu yàlla ngir ñu jëfandikoo ko ba tax nañu ànd ceeg ki nga xam ne moo di Cheikh Omar Diop bio naturel uh, di defal li nga xam ne dafa jëm ci wàllu faj doomu aadama dimbali doomu aadama moom it doon jàmbaar ndeysaan macha allah yal yàlla fay ko mu ànd ak ñun ci émission bi nga xam ne moo di subul salaam uh, ginnaaw biñ ci àndeek télévision bi nga xam ne moo di mafatihul bichri uh, mafatihul bichri bi nga xam ne dara yitteelu ko lu dul li borom mafatihul bichri daan def rek mu nekk ne loolu lay def mu di li ko yitteel moo di fexe ba itam Euh, dimbale doomu aadama fexe ba itam jàppale doomu aadama fexe ba itam xamle mbind mi nga xam ne moo fi nekkoon mu di euh, moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi ba tax na ñu ànd ak ñoom ci émission bi nga xam ne moo di subul salaam Cheikh Omar Diop kon yàlla yàlla fay ko euh, lii nga xam ne itam moo di initiative bu rafet bi nga xam ne télévision Mafatihul Bichri def na ko muy ñoŋal lislaam yàlla yàlla fay mu mel ni ki ñu ngi woon ci masuliyatul marati wa dawraha fi islaam islamiya mu mel ni ki nekkoon nañ ci li nga xam ne moom moo di euh, responsabilité bi jigéen am ci biir société islaam bi mu mel ni ki waxoon nañ leen dafa am juróom-ñaari ponk yoo xam ne dafa war ci jigéen mu bàyyi ko ci boppam xam ko xam ak yi nga xam ne moom la ko lislaam jox mu mel ni ki waxoon nañ leen yi njëkk yi ba ci toll ci ñeenteel bi kon loolu lañ fas yéene yeggali ci xaq yi nga xam ne lislaam jox na ko doyadal gi nga xam ne ñu ngi ko daan doyadal warma bi nga xam ne lislaam jox na ko euh, mbir yi nga xam ne loolu la yel loolu yépp benn bu nekk lislaam indil ko ci ay xàqam kon mu mel ni kii ci loola la ñuy daal di tàbbiwaat gën ko leeral kon mu mel ni que ñu ngi tolloon ci ñeenteel bi mooy xatal bi nga xam ne daan nañ koo xatal jigéen di ko tere ay xàqam ba ci sax jigéen góor daana takk soxna ba pare bàyyi ko ci biir kër gi ne ko danaa la sonnal danaa la mettital waaye duma la fase booba itam lislaam bu mu ñëwee def ci indi kare loola itam euh, naan dinaa la fase waaye bala ma laa fase danga maa delloo lam la joxoon lislaam bu mu ñëwee dafa wax ne euh, euh, wala taxduluhunna li tazahaboo bi baadi ma ataytumuhunna ila an yatina bi fahishatin kon mu mel ni kii jigéen Euh, am nga sañ-sañu ne ko jox ma la ma la delloo woon waaye su boobaa dafay fekk ne moo fa bëgg a jëlee boppam fa fekk ne moo def lu ñaaw mooy def lu bon ba nit ñi teg ki seen bët ka ne sax lii nëbbatu ko su boobaa am nga sañ-sañu laaj ko lam la joxoon kon mu mel ni kii ci liñ doon jëm rek moom moo di juróomeel bi nga xam ne war na ci jigéen itam mu daal di koy xam kon ba lislaam euh, ñëwee dafa fekkoon jigéen doon jànkonte ak ay mettit jon jànkonte ay jikko yu ñaaw yoo xam ne dañ ko daan nekk ak jigéen ci biir kër gi daan ko tor toroxal di jëflanteek moom loo xam ne lu bon la di jëflanteek moom loo xam ne ci seen bakkan kese lañ ko tegoon ba lislaam ñëwee itam dafa digal ne jigéen nañ jëflanteek ñoom lu baax nañ jëflanteek ñoom ci jikko yu raaf wa ashiruhunna bil fi nañ jëflante ak jigéen yi lu baax nañ jël jikko yi nga xam ne gis nañ ko ci ñoom lu bon ñu jël seen jikko yu baax ya teg ko ca kaw kon jigéen mën nañu wax ne nit mënta ñàkk jikko joo xam ne nit ñi gërëmu ko waaye su boobaa da ngay jël loolu nga xam ne mooy lu ñaaw la nga jël lu rafet la mu am nga teg ko ci kawam kon dee leen jëflanteeg jigéen ñi lu baax dee leen jox cër ba ñu war a am dee leen jox xàq ba ñu yellool dee leen wormaal jigéen dee leen suturaal jigéen dee leen yaatal jigéen ci biir kër yi jox leen xàq ba ñu moom suturaal leen jigéen jox leen jigéen ay xàqam ak cëram yim am ci biir kër gi yim am ci biir société bi waaye yim am ci biir àdduna si yépp kon wala hunna mislu lazina alayhinna bil maarufi ci suuratu baqara boo demee danga ko fa fekk suturaal leen jigéen jigéen mooy ki nga xam ne boo ko suturaalee yàlla suturaal la kon baaxalal jigéen yàlla baaxal la soo bëggee lislaam jox la xàq yi nga yellool joxal jigéen xàq yi nga xam ne moom la yellool kon juróom benneel bi itam moom moo di bokk na ci euh, lislaam dafa daan wax naan avant lislaam ñi fi nekkoon avant lislaam bokkoon nañ ci jigéen bu borom këram daan génn àdduna dañ ko naan danga war a muuru at kon jigéen avant l'islam bu borom këram daan génn àdduna at lay muuru kon bi l'islam ñëwee at mooma daf ko wàññi def ko li nga xam ne moom moo di ñeenti weer ak fukki fan kon lislaam moo indi jigéen di muuru ñeenti weer ak fukki fan waaye avant l'islam jigéen at la daan muuru borom këram kon walladina yutawaffawna minkum wa yazaruuna azwaajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran kon ci avant l'islam jigéen at la daan muuru waaye bi l'islam ñëwee dafa wax ne yéen ñi nga xam yéen a nekk ak seen borom kër seen borom kër génnee àdduna yow ci jigéen ki na muuru ñeenti weer ak fukki fan te mu mel ni ki bu ñu demee ci wàllu li nga xam ne moom moo di euh, muuri gi te li ñuy wax ténj bu ñu ci demee ci jamono ji ñu toll ni aada yiñ ci dugal bëri na lool lool te tamit am na ci aada yoo xam ne dëppoowul ak lislaam am na ci aada yoo xam ne dafa dëppoo ak lislaam maanaam am na ci lu rafet loo xam ne dañuy dem sax ba kay jaawale ndax lii lislaam la ndax lan rafetal ci diggante jullit ñi waaye am na ci aada yoo xam ne dugal nañu ko ci biir tenj te bokk ci kenn ku nekk di xool naka la ko say maam doon defee nga gën koo ñoŋal ci loo xam ne lislaam gërëmu ko ci loo xam ne lislaam sant ko ci loo xam ne lislaam alquran ñëwu ci benn yoon kon mu mel ni ki jigéen nam war a mel nam war a mel ci lislaam rek daanaka su meree noonu war naa mun a muuru boroom këram te du ci boole benn aada waaye tenj ñëw nga yor ay jaasi ñi yor ay paaka ñi yor ay bant ah di def yoo xam ne daal ci aada kese nga ko teg waaye tege ko li nga xam ne moom moo di diine lislaam lislaam dafa ne nanga ñaawlu nanga ñaawlu doo doo xeeñ lu neex doo jël diw yi nga xam ne tey ñoo ñoo ngi koy diwoo doo sol lu rafet doo takk ay jaar waaye mu mel ni ki daal dafa mel ni ki dafa am aada yu bëri yoo xam dañ koo boole ci li nga xam ne moom moo di euh, tënj te lislaam boole wu ko ci woon li la war rek mooy nanga set na nga sell na nga yiw tey joxe mbooleem julli juróom yi di tudd yàlla foo toll bañ di wax lu sa yoon nekkul bañ di jëw kenn bañ di nekk ci loo xam ne sa yoon nekku ca nekk ci biir kër gi toog ci di ñaanal ki nga xam ne moom moo di sa boroom kër ci fukki weer ci ñeenti weer ak fukki fan loolu la lislaam santaane waaye mu mel ni ki kon ba ñëwee lañ commencé muuru ñeenti weer ak fukki fan waaye lañ daan muuru moom moo di am at waaye ba lislaam ñëwee def ko xaaj ñetti yoon indi ñeenti weer ak fukki fan kon juróom-benneel bi mooy awsal islaam bil marati xayran kon maanaam dee leen wante jigéen ñi ci lu baax ci lu rafet ndax yonent bi salallaahu alayhi moom moo ñu ko digal dee leen seddal jigéen ñi lu baax waaye dee leen seddal itam lu rafet wastaw soo nisaa bi wastaw soo bi nisaa yi xayran dee leen seddal jigéen ñi lu baax dee leen dénku jigéen ñi lu rafet ngir ñuy def lu baax ngir ñuy def lu rafet ndax mu mel ni ki yonent bi salallaahu alayhi wa dafa tere jigéen ji nga xam ne ab jullit la nga koy wax lu bon wala nga koy wax itam lépp loo xam ne lu ñaaw la laa yafraku muminun muminatan in kariha minha xuluxan radiya minha xuluxan axar waaw kon mbokk yi ñu dem résu daal di dellu siwaat ci publicité bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi ci ànd ak Cheikh Omar Diop bio naturel لو كل حال من حدا nga gis nii ci suñ ginnaaw nii nga gis ni lii ay garab la yoo xam ne euh, plante naturelle la nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi am ay feebar feebar bu mën mënti nekk incha allah yi ci gën a bëri dañ koy faj fajal ko jaam yàlla yi ba mu wér lii nga gis nii ma tiim si sama kanam nii nga gis mooy bii sachet bii nga gis kii moo jëm ci néegu sëy yi nga xam ne seeni borom dañuy néew kàttan ci seen wàllu sëy képp koo xam ne yàlla natoo la nga am Euh, euh, jafe-jafe boobu ci sa wàllu sëy garab bii ma téye boo ko naanee incha allah dana ko dindi ba mu set wecc ci sa yaram sénégalais yi xam nañ ko monde diaspora bi xam nañ ko dañ koy jëfandikoo bu baax ndax bëri na ay garab yu ñu doon jëfandikoo bàyyi nañ ko tey euh, grâce à produit bii ma yore nii moom moo ko waral garab bi nag garab bu baax la garab la boo xam ne képp koo xam ne yàlla nattu na la sa wàllu sëyukaay wàññeeku nga néew kàttan wala booy ànd ak soxna si ngay teel a pare wala sax xel du ci nekk bu boobaa boo ko jëfandikoo dana ko dindi ba mu set ba nga xam ne yooyu problème incha allah dootoo ko amati euh, lii nga gis nii mooy yeneen garab yi nga gis am na ci loo xam ne pour wàllu hémorroïde la fekkee da am feebar boobu ñuy wax hémorroïde nga xam ne booy dem toilette biir bi day génnee ngelaw kese wala ngay génnee deret wala ngay seere soo ko naanee incha allah dana dañ ba set su fekkee ne da nga nekk koo xam ne da nga am ndoxu siti yaram buy xasan wala yaram buy tàng wala yaram buy ruux boo ko amee boo ko naanee garab yi incha allah dana deñ wala nga am lu mel ni asma mu nekk lu metti boo ko incha allah garab yi soo ko jëfandikoo ci wàllu asma dana deñ ba set am nañ ci garab bu feebar bu nekk rek am nañ garab boo xam ne moo koy faj bu fekkee ne wàllu jabet la nag yàlla may nañ tawféex ci am nañ ci garab bu baax boo xam ne su fekkee da nga am jabet ba jabet bi néewal la kàttan ci sa wàllu sëy wala mu wàññi sa gis-gis ba sa bët yi lëndëm wala mu jeexal la ba amatoo kattan yooyu garab yi boo ko naanee dana delloo siwaat sa yaram dana delloo siwaat sa wàllu kattan si sa wàllu sëy dana delloo siwaat si say bët ba sa gisin leer bu fekkee ne nag da nga nekk koo xam ne euh, waxtu woo lekkee rek sa suukar day daal di yéeg garab bi boo ko naanee boo amee 30 minutes rek da nga gis suukar si day wàcc ak lu loo néew néew kattan loo jeex-jeex soo naanee garab yi jabet bi dana ko delloo siwaat ba mu mel ni garab bi moom garab la bu wër àddina fépp ci àddina bi nit ñaa ngi koy jël di ko naan te dëggal nañ li ma ci wax te ci baaxaay ak ak ak ak li nga xam ne moom moo ci nekk ci gaawaay pour wàccee suukar euh, garab bu baax la baaxaay na baaxaayam foo ko nat weesu na ko am na ci yeneen garab yoo xam ne bu fekkee da nga am infection wala nga am lu mel ni prostate incha allah soo naanee garab yi ci diir bu gàtt nga gis prostate bi day daal di dañ ba set su fekkee da am estomac wala nga am ulcère incha allah am nañ garab yoo xam ne ci garab yi boo ko naanee ulcère bi dana dañ ba set bi tamit noonu te garab yi nii nga gisee ma ko waxee fii ci place bi noonu laa ko jëlee yóbbu ko ci sama boutique yi nga xam ne nekk naa ci biir Sénégal ak ci bi àddina bi fépp foo xam ne rek am naa ndaw lu ma fa nekkal ni ma ko waxee euh, fu mel ni Amérique am nañ fa ndaw loo xam ne moo ñu fa nekkal ci Texas numéro bii ngay seetaan nii numéro bii mooy numéro Amérique bi soo ko gisee soo ko ooyee rek moom mën na la wax fi mu nekk ci Amérique boo mënee jënd ko foofu ci moom soo ko mënee mu yónnee la ko mbaa mu indil la ko su dee ci France la incha allah numéro téléphone bii nga xam ne mooy numéro France bi numéro bii boo ci ootee am nañ ndaw lu ñu nekkal Paris 18e soo ko ooyee mën na la jox garab yi mën na la jox produit yi bépp garab boo ci soxla ci wàllu góor wàllu euh, bu mënti nekk incha allah dana la dimbale ba nga joti su dee ci Espagne la euh, numéro Espagne baa ngi noonu nga jàkkaarleel numéro bii boo ci ootee ci ndawal ñu li nekkal Espagne soo ko laajee garab yi incha allah dina la jox garab yi dina la jox produit yi nga xam ne moom lañ tiim muy lii nga xam ne moom laa tiim nii muy wàllu bio naturel yi yëpp waxtu woo ko soxlaa rek allah da nga am li nga xam ne mooy suñu garab ak foo mën a nekk ci àddina bu dee ci Sénégal nga nekk wala ci Afrique nga nekk wala ci monde bi foofu mu mënti nekk rek yii ndaw ñu nga fa yii tamit am nañ ay ndaw yu ñu fay demal foo ci mënti nekk rek incha allah boo ko soxlaa rek mën nga cee jot Euh, di leen gërëm bu baax nag yéen ak ñaanal seen télé bi yal na ko yàlla jëmale kanam yal ko yàlla may ndam émission bi yal na ko yàlla jëmale kanam a yaatal gën ko dëgëral fépp fu télé bu am doole yegg ci àddina rek yàlla na yegg ci barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma salik ala allahi aziz wa salaamu aleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ci euh, Cheikh Omar Diop bio naturel moom lañ àndal ci émission bu am solo bi di subulu salaam euh, kon mu mel ni kii produit yaa ngi noonu baax loolu ci yaram Euh, mu mel ni ki numéro itam yi daw ci suuf képp ku ci jaar mën ngaa jot ci li nga xam ne moom moo di produit bi moo xam ngeen nekk ci biir réew wala bitim réew am na saabu yoo xam ne itam macha allah bu baax na ci yaram lool waaye am na karité yoo xam ne itam baax na ci bopp yi nga xam ne dafay karas yi di ruus di damm wala yi nga xam ne dañoo am wàllu ndoxum siti ñi nga xam dañoo am émérite ñi nga xam dañoo am feebar sexuelle Euh, ak lépp loo xam ne daal euh, lépp loo xam ne daal maanaam euh, suy sew sewaan yooyu nga xam ne dafay sonal doomu aadama ci ay feebar yooyu nga xam ne daal dafay dab doomu aadama ci dundam mën ngaa seeti Cheikh Omar Diop bio naturel macha allah yàlla may na ko ci waaye liggéey la boo xam ne maanaam kilifay réew mi saytu nañ ko ba jox ko ne war ngaa mën a faj doomu aadama yi ndax garab yi nga xam ne moom lay joxe dugal nañ ko ci laboratoire segg ko ba mu set macha allah kon mu mel ni ki daal diw yaa ngi noonu mooy ki nga xam ne mooy gunge ci émission bi euh, moom it doon jàmbaaru lislaam mun naa wax ne Cheikh Omar Diop jundiyul Quran ndax jàmbaari lislaam la joo xam ne macha allah mi ngi taxaw doomu aadama yi waaye tam mi ngi dimbale société bi ndax ay doomi réew mi ñoo nekk ci moom di liggéey di fi daan seen doole di ci am seen wërsëg kon yàlla na yàlla fayal ñu ko comme ni ko niñ koy ñaanalee rek ki nga xam ne moo di euh, am euh, xelum taxawal li télévision ma faatihul Bichri yàlla yàlla fayal ñu ko mu di sëñ ma jama mbay moom it ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di nuyoo suñu sponsor bu mag boo di soxna billoo moom tamit euh, nekk foofu ci Amérique ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara kon mu mel ni que ni ngi tolloon rek ci juróom benneel bi ci maanaam taxawaay bi nga xam ne moom la jigéen am ci biir société euh, lislaam bi waxoon naa leen jigéen ci boppam euh, dañ koy suturaal jigéen ci boppam dañ koy jox ak ak yelleef yi nga xam ne lislaam moom moo ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu indee lislaam dafa wax ne maa ngi leen di dénku jigéen ci lu baax wastaw soo bi saa i xayran te leen jëflanteeg jigéen ñi lu baax te leen waxanteeg jigéen ñi lu baax Euh, képp kuy jigéen rek war ngaa sori lépp loo xam ne lu bon la ndax bokkut ci xàq yi nga xam ne moom la la lislaam jox ndax lislaam fonk na la trop yow jigéen kon daal l'islam bañ na képp koo xam ne da ngay euh, toroxal jullit euh, waaye da ngay toroxal itam jullit bu jigéen kon donte jigéen yàlla boole na la ak moom jikko ji nga xam ne mooy jikko ju ñaaw ci moom jël ko nga jël jikko ji nga xam ne mooy ju rafet ci moom nga nëbbee ko jikko ju baax ja donte sax lu mënta ñàkk la ndax yàlla daf ñoo bind ci li nga xam ne euh, moom moo di ak euh, jubadi maanaam euh, li ñuy wax ne yàlla dañoo bind ci yax bu dëng moo tax kon jigéen jubam xocc dina xaw a xaw a jafe waaye yow mi nga xam ne yow la ko yàlla boole rek dee ko comprendre saa su nekk di ko jox xàq ba nga xam ne moom lu ko lislaam jox ngir nga mën a noppal sa bopp kon jikko ju nga xam ne ju ñaaw la ci moom rek fexeel ba jël ndax ku am lu bon rek am nga lu ko am lu ñaaw rek am nga lu rafet kon jëlal lu rafet la ca moom nëbbee ko lu ñaaw li su ko defee nga daal di noppalu mu mel ni ki daal adduna yépp borom xam-xam bi dafa wax ne adduna ci boppam ay xéwal la te xéwal yooyu mooy nga am soxna si nga xam ne soxna su baax la soxna si nga xam ne soxna su yiw la cheikh ahmadou bamba xaadim rasul bokk na ci ay ñaanam su daan ñaan dafay wax ne wa zawjatan saalihatan tu'inu ala tuqaa wal birru yaa mu'in yow yàlla yàlla nga ma may soxna su baax yàlla nga ma may soxna su may dimbali ci ak jaamu yàlla yàlla nga ma may soxna soo xam ne daf may dimbali ci ak ragal yàlla ak topp yàlla kon daal jigéen mooy ki nga xam ne xéewal la ci xéewal yàlla yi nga xam ne daf ko wàcc ci àdduna kon xéewal yooyu bu la ci yàlla xéewalee jox la ak soxna na nga fexe ba fonk ko waaye itam na nga fexe ba jox ko cër ba nga xam ne moom la yellool te bokk na ci itam soxna su yiw te soxna su yiw fañ koy tànnee mooy fa nga xam ne fa la ñuy tànnee wutal say euh, njaboot yaay ju baax tànn soxna si nga xam ne da nga koy yaakaar ngir diineem li nga xam ne mooy jaxase ab sëy rek li nga xam ne mooy tax ak mbetteel da ca am mooy soxna yi nga xam ne dañ leen di tànn te tànneewu leen ci diine soxna su rafet ku ko tànn bu taar ba jeexee coow la day bari soxna su bëri alal alal yàlla mayewu ko daf ko able soo tànn jëlee soxna ngir alal ja mu yore su alal ja wàññeekoo mbaa mu jeex rek su boobaa itam ay jafe-jafe mën naa am ci sëy ba boo tànnee jigéen ndax askan askan itam nekkul loo xam ne dafay euh, nekk ci jikko wala dara ndax mu mel ni ki jikko yi yàqu na yàqu goo xam ne nit nit ki seetatul ndax man ci askan wi laa bokk jomb naa def lii wala jomb jomb naa wax li dafa mel ni ki loolu konteetul ci xale yi nga xam dañoo mujj juddu seen yoon nekkul ci li nga xam ne moom moo di askan kon daal boo bëggee noppaloo daal ci jigéen bëgg am ci xéewal yàlla yi nga xam ne moom la wàccee te mooy adduniya mataan wa xayru mataan al maratu saaliha maanaam jigéen ju yiw jooju jigéen ju baax jooju boo ci bëggee noppalu da ngay takk jigéen ji nga xam ne danga nga koy yaakaar ngir diineem mu matale ko da koy yaakaar ngir diine jooju soo amee ak njaboot mu mën leen caa taxaw kon mu mel ni ki daal jigéen it war naa xam itam moom mooy kan ginnaaw ba ko góor joxe cër ba nga xam ne moom la ko war a jox cër ba nga xam ne moom la ko lislaam jox cër boo xam ne itam moom la yelloo kon mu mel ni que ñu ngi ci juróom-ñaareelu tomb bi nga xam ne ci la ñu war a jeexale ci la ñu nekk nii wax naa leen Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul su daan ñaan daana ñaan jigéen ju baax jigéen ju koy dimbale ci topp yàlla jigéen ju koy dimbale ci jaamu yàlla waaye yéen ñi nga xam ne itam da ngeen a yor ci seen bët di xool yor seen tànn di tànn soxna su boobaa ngir nga mën a jaxase sa say ëllëg mën ngaa tànn soxna si nga xam ne dangaa yaakaar diine ndax lépp lu muy def rek dana ci xool diine ji nga xam ne moom la ko ci yàlla sant naka la war a jëflanteeg loola te dina ku ca sukkandiku sa daanu du yomb dina ku ca sipp sukkandiku itam bu fekkee itam dem nga sax ba jaar du yoon boo xool xoolaatee diina rek da nga teguwaat yoon wa nga xam ne euh, moom nga war a tegu kon daal jigéen itam war naa xam boppam jigéen itam war naa xam lan moo tax ñu indi ko ci biir kër jigéen lan war naa xam itam lan mooy ab sëy naka la ko war a defee naka la ko war a fonkee borom këram naka la ko war a sàmmee naka la ko war a toppee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi sallam dafa wax ne isaa nasara ilayha sarathu jigéen mooy ki nga xam ne euh, da nga ko indi si biir kër gi jigéen ju baax jigéen ju yiw mooy ki nga xam ne saa yoo ko xoolee rek da ngay daal di euh, bég ci moom yow mi nga xam ne yow yaa di borom këram ne ne wi sa amaraha ataathu saa yoo ko digalee rek la nga koy digal mu topp ca lépp loo koy tere itam daf koy sori bala nga koo tere sax mun naa am boo ko waxee bala nga koo waxaat dana yàgg ndax xam nga la xam na xam nga lami bañ ba tax na danga koy moytu mooy koo xam ne daal saa yoo ko digalee rek la koy digal mu daal di koy def nee na wéy sa xaaba an xaa xafisat xu lépp loo xam ne itam euh, euh, sa alal la mu wattu la ko sa njaboot mu wattu la ko say waajur mu wattul la ko lépp loo xam ne rek am nga ko mu wattul la ko soo fi nekkeek soo fi nekkul su la giseek su la gisul jigéen mooy ko ki nga xam ne daal saa su nekk dafay sàmm euh, borom këram li mu am moo xam ci biir kër gi la moo xam itam ci mbedd mi la sàmmala ba sàmmal la ci askan wi nga xam ne moom nga bokk loolu mooy tax euh, jigéen sàmmala sa alal sàmmal la itam sak njaboot kon mu mel ni kii woykat bi dafa wax ne wa xayru nisaa man sa man saratil zawja man saran mel ni ki ki ñuy wax ibnu abdu xawi yi aw waykat la boo xam ne euh, li def ko woyoon ci ay tegginu jigéen dafa wax ne wa xayru nisaai man sarati zawja man saran wa man xafisathu fi maxibi wa mashhadi xasiratul alfaasi xasira baytiha xasiratu tarafil ayni an kulli abondin alayka bi saati diin uh, tasfaru bil muna alwadudu alwaludu aslisatul taabudi mel ni ki <clears throat> lii ab woykat boo xam ne moom la ñuy wax ibnu abdul xawi yi moom moo ko woy ci tegginu jigéen mu ne jigéen ji gën ci jigéen ñi mooy ki nga xam ne saa yu ko borom këram xoolee rek daal di bëgg ci moom mooy ki nga xam ne dafay wattu boppam wattu li nga xam ne moom la borom këram am bu fekkee mu ngi fii ak bu fi nekkul kon mu mel ni kii itam jigéen ci boppam dafay gàtt li nga xam ne moom moo di làmme gàtt li nga xam ne itam moom moo di tànk fexe ba sax ci biir kër gi nga xam ne fa la ko borom këram euh, bàyyi li koy génn rek na fexe ne li nga xam ne moom moo di ab liggéey su fekkee ne yàlla jox nag ko su demee ba ñëw na ñëw ñu ñëw toog si biir kër gi waaye nag na fekk la muy def mu nekk ci ndigalal borom këram kon jigéen daal dafay gàtt tànk gàtt li nga xam ne itam moom moo di làmmi gàtt itam am gis-gisam ci li nga xam ne moom la borom këram am li sa borom kër am na nga fexe itam ba yam ca su fekkee ne euh, euh, da ngay xool keneen koo xam ne tolloowul ak euh, sa borom kër doole su boobaa da ngay sonal ki nga xam ne moom moo di sa borom kër kon lim am na nga ci yam lim la jox nga doyloo ko mu bari lool ci yow. Euh, su fekkee ne lim la jox doy lool nga ko itam ci say bët rek day nekk loo xam ne lu bari la ci yow waaye di bañ di toppandoo koo xam ne yamu leen di bañ di ànd ak ñoo xam ne daf leen daf lay yàqal kon daal neena na waykat ba nee maa ngi leen di dénku lii euh, ndax bokk na ci li nga xam ne moom moo di mébét mébétu ki nga xam ne moom mooy bëgg ndax bëgg na saa yi li muy indi saa yu ko indee ci biir kër gi rek mu nekk loo xam ne daf koy euh, jural doom yoo xam ne ëllëg dañuy roy ci moom mu nekk koo xam ne itam roykaay lay doon moom soxna si nekk koo xam ne itam cosaan lay doon ci ak jaamu yàlla ndax jaamu yàlla su fekkee ne da yow mi soxna si da nga am ñëw ci biir kër gi su boobaa xale yi buñ ko jëlee rek su boobaa cosaan lay doon ndax cosaan ga mu nga soqee koo ci yaajo kon mu mel ni ki daal lu am solo la kon ñuy roy ñi nga xam ne ñoom lañ mat a roy te ñu nekk fii ci suñu biir réew mi yàlla jagleel ñu ko ku mel ni ki soxna Jaariyatullah ku mel ni ki Maam Fawade Wele ku mel ni ki yeneen jigéen ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nekk ay royukaay ñu fexe itam ba xool ci ñoom xam ne am nañu àq yu mag am nañu àq yu rëy am na itam loo xam ne l'islam moo ñu ko jox ngir ñu yelloo ko am na loo xam ne itam métti woon na avant l'islam di ñëw waaye ba lislaam ñëwee daf ñu ko xeexal ba ñu jot ci kon su boobaa itam li mata rek mooy ñu fonk ko mooy juróom-ñaar yi nga xam ne kenn ku nekk war naa xam attaye ca nekk kenn ku nekk war na koo bàyyi xel kenn ku nekk war na koo jëfandikoo ndax mooy loo xam ne da nga koy jëfandikoo ci biir kër gi waaye di ko jëfandikoo itam ci mbedd bi ba tax nga mun a am comportement bu baax wax naa leen ne jikko ci biir kër lañ koy defaree waaye comportement ca mbedd ma lañ koy wane li ngay génne ci biir kër gi nag di ko yóbbu ca biti mooy comportement yi nga xam ne yaa ngi koy dund ak eh, ñi nga xam ne ñoom ngay taseeg ci mbedd yi su jikko yi ci biir kër gi baaxee rek comportement yi nekk ci mbedd yi dafay daal di baax day nekk loo xam ne lu ñëpp gërëm la nit ki mënta yaru yar boo xam ne romb na yarub diineem wala gën naa yar yarub gën naa yées yarub diine ba tax mu am yar bu baax li nit ki mën a baaxal rek mooy kii am diine soxna si nga xam ne dafa am diine day nekk koo xam ne dafay neex nit ñi day nekk koo xam ne nit ñi dañuy am ci moom cofeel nit ñi dañ koy bëgg lool di ko seedal lu rafet fu nekk te lépp loo xam ne seddal nañ la ko ci rafet rek euh, malaaka yi ñu ngi koy di bind mu nekk tiyaa boo boo xam ne macha allah nit ñi dañuy daal di roy ci yow nga nekk royukaay ci biir kër gi ak ci biti kër gi te li ko waral rek moom moo di nga fexe ba dund li nga xam ne moom moo di diine lislaam fexe ba xàq yi nga xam ne moom la lislaam jox nga yellal ko bañ di topp jamono ji nga xam ne macha allah dafa jaxasoo kenn ku nekk xamoo fooy taxaw kenn ku nekk xamoo naka ngay waxee xamoo naka ngay jëflantee euh, ku ci moytuwul di topp télé yi nga xam ne macha allah ñu ngi wane loo xam ne dafay tax euh, di di di taqal diine lislaam ñu ci wax wax yoo xam ne diine indiwu ko di ko di ci wax di ci jàngale loo xam ne itam lislaam rafetluwu ko su boobaa da ngay réeral sa bopp ay borom xam-xam ñu ngi fi nit ñu baax ñaa ngi fi doon royukaay ndax ku tudd soxna laa rek xam lam daan dundee ci biir këram umpatul kenn ma faawa duwel lim daan dundee ci biir këram umpatul kenn mel ni ki télé yeeg rajo yi ñëpp a ngi wax ñi ñi bëgg a déglu lu baax ñi ngi koy déglu waaye ñi bëgg a déglu lu bon itam ña nga ca déglu te su boobaa itam loolu boo ko dégloo daf lay daal di réeral ndax mu mel ni ki doo am jàmmi àdduna waaye itam doo jëm am jàmmi àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal kon daal na yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla may yàlla lu ñu am yàlla nañu am yàlla lu ñàkk itam yàlla nañu am yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ci suñuy borom kër yi waaye borom kër gi itam yàlla na leen yàlla may dégg ak topp lislaam ba tax ñu mën yërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër yi kon mu mel ni kii ñu ngi àndoon ak euh, Cheikh Omar Diop euh, bio naturel macha allah mu nekk koo xam ne mi ngi dimbali doomu aadama ci wàllu wér gi yaram euh, lu mel ni kii gis ngeen karité yooyu macha allah muy defar di ko dimbale doomu aadama gis ngeen saabu yi gis ngeen sunguf yeeg macha allah yooyu nga xam ne daf ci faj ay faju cosaan macha allah mu nekk loo xam ne lu mu jàng la ba waa mi kilifa réew mi saytu ko mu nekk loo xam ne itam nangul nañ ko ne liikat lu baax la ndax dugal nañ ko ci ay machine ba xool ko saytu ko mu nekk loo xam ne lu baax la ñu ànd ak ñoon ci émission bi nga xam ne moom moo di subul salaam mu ñu ci gunge saa su nekk kon ñi ngi sant bu baax a baax sëriñ Njaga sekk moom lañ ànd ak ci wàllu caméra bi yal na yàlla fay ko yal na yàlla jàppale ko li nga xam ne moom la yaakaar ci liggéeyal ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yal na ko yàlla fay ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni ko yàlla fayee ndax gis ngeen képp koo xam ne taxaw nga ci àdduna rek xam nga ne yàlla euh, fay na Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ci àdduna avant àlaxira di ñëw kon yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla jàppale ñu ba lépp loo xam ne yaakaar nañ ko rek ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey yàlla defal ñu loo xam ne lu kawe suñ jotu la ma Madiama mbayit ñu ngi koy ñaanal bu baax baax si initiative bu rafet bi nga xam ne am na ko ci diinal islaam ndax mun naa wax ne fépp foo xam ne rek euh, diine l'islam yegg na fa tele bi nga xam ne moo di ma Mafatihul Bichri yegg na fa ndax dara yitteelu ko toppul itam benn tarixa wax na lii mooy lislaam wala di lislaam waaye fépp foo xam ne rek lislaam nekk na fa tele bi taxaw na fa kon mu mel ni ki ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax képp koo xam ne mi ngi ànd ñun nag ci émission bi di subul salaam wala mi ngi ànd ñun sax ci télévision Mafatihul Bichri ñu ngi koy sant bu baax a baax bu ñu sañoon kenn ku nekk ñu tudd sa tur waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen sant itam saa su nekk di sant bu baax waa bio naturel kon ñu ngi leen di jox dig dajee ci yeneen émission subul salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu azanil baaxi min aseytaani hinal mamariya wa fil awdaani azanil baaxi min aseytaani hinal mamariya wa fil awdaani Cheikh Omar Diop bio naturel ñëpp xam ko ci liggéey bu sell te wóor moo leen di may seen émission subulu salaam